Huh? You should check your Facebook. You actually your system and stuff. be Hello, hello. Yeah, I can hear. Okay. Hello. Can, can, you try put in um, put in two channels, please? Say something else, man. Hello, mic test. Hello, mic test. Please increase the volume. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. It's okay. profité comme waxee woon rek ñu ngi nii fii ni Independence Drive nga xam ne ñu réewu mbir ne Gambia yëpp ñu ne Kofiw la soo tey ñu ngi ko dooree fii nii si Banjul nga xam ne ñu ngi nii tey fii nii di dox fii nii nga xam ne si mbedd mooy di main Independence Drive fii nii gis nañ ñëpp a ngee muuf am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñu ngi naan ataya maa ngi suma benn broda mu ñu ne eh Abdallah naka am nat yaa ngi otherwise Ah, ok waaw is it ok or not. is ok is ok is ok. so lan nga am pour wax Gambien about this Covid 19. it's all right it's all right because the coronavirus is happening you know and we know you know it's happening you know and we know many people they are dying you know and we are seeing you know. so loolu moo tax ma ne la it's true it's true li ñoo def ni it's reality so covid 19 is real lan nga lan nga am puy wax ñi nga xam ne ñooy seetaan lan nga lan nga am puy advice leen ñii seetaan dëgg la affaire yi dëgg la xam nga ma laa ni because it's real it's real you know so xam nga ma lu ñoo paak ni is happening ku ñu mu a téye si yoon bi daal ñu yóbbu la you know loolu laa mën a waay baaxee ñu tur bi waat tur bi waat. man Abdoulaye Sané. Abdoulaye Sané. thank you very much. you welcome. thank you. so ñu ngi doon wax ak ki nga xam moy mooy Abdoulaye Sané right now ñu ngi ni Independence Drive Independence Drive lañ nekka ni opposite mu naa opposite next to the state house is on my right hand side fofu lañ leen nekka nii. am na ñi nga xam ne ñoo toogee fii nii si boori petrol station bi xana ma jéem a try laaj leen rek seen tour Daba Daba na nga def Daba na naka am na yaay ngi cool.

xamna na ñepp tok toog niñ ko waxe rek nañ ko defé lool nañ raxasu di takk max yi yàlla baax na. jërëjëf kenn xamu kañ la mooy jeex. jërëjëf tour bi waat. Daba juuf Daba juuf waaw kon ki nga xamne mom lañ doon waxal nonu moy Daba juuf mo suma sista bu baax la mom gi dégg ngeen nu wax nañ try ñuy takka maxi para pare ñuy raxas suñu always comme niñ ñu ko waxe ñi ngi ni fi ni Banjul ñi ngi wër nak pour sét li nga xamne ne moy mooy kafiw bi nga xamne ne lañu def fi ni ci bir Banjul gis nañ ne gis nañ moto ku nekkaa ngeen ros kuy daw dem sa kër on understand so ñii ne dinañ dinañ ànd ak yéen nag toppaleen ñu fii si Sahel Network TV dinañ ànd ak yéen dugg si biir dëkk bi xool yeneen place yi naka la mel jërë ngeen jëf set wecc only thing li nga gis rek mooy lay commune comme comme xaj yi nga gis nii ñoom ñoom rek a fi nekk Independence Drive bot mbeeda bi yëpp a ngi set fu nekk ni right now am na suma benn broda bu taxawee ne la moom mu ngi tuur cigarette muy Amadou Amadou nakam nat yaa ngi cool si loo nekk nat yaa ngi fine Amadou naka nga gisee coronavirus bi nii si biir dëkk bi ah, coronavirus bi naka lañ mëna def pour sauver suñ bopp coronavirus bi ni mu moy moytu rek ak fagaru rek like na nu waxé né yo distance bi dafa war a nekk. ñu fagaru mm-hmm. rahasu hmm waaw lool rek la ma tax ñu mëna ñu mun ko mucc daal. Mm-hmm. waaw légui lan nga am puy wax ñi nga xamné ñu né coffee bi wuñ ko assez serious. Uh, as a security, remember I'm a security. Mm -hmm. Coffee is given by our president. Mm -hmm. So that duty by force we must carry her up to the ladder. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Coco believe, fine. That's how you fake Alava. You will dance the tune. That's all. So long. virus is not a joke. And in the life of people, if you are, you are not caring your life, that's a lot of people may are yes, they need it. So we will not joke on it. That's it. So long. nga ex Long nga wah puy wax ñi nga parents because they ganin ne du ñaaka xale yi dañ dee officers yi nga xamné ya yaa dëgg la da nga war advice sa njaboot yaa ngi dégg fine we all know family am ñu lay dégg seen wax parents yi amna ño xamné xam ñu ko dara waye nak we do as your duty ñu la mëna a dégg fine waaw loolu nga wara def each parent da nga wara advice sa njaboot la wara def tel ko def bu time bu ñu joxe bu dëgg bi yépp fexeel nga nekk si sec so amadou mi security man la awo ya es ma ngay ñib ci fo tay ya ma fega suma buntu keur ni i was set samples ma tok ma ne ndaw ma security no am part of it on unless ñu mandate ci duty bi ñu nekk di patrol am not part of that patrol i should be inside so jere jef amadou thank you tour bi waat amadou naka amadou jam thank you very much mr jam ñina ko digandor moom nii sax sécurité waaye da ngaa foog ne dafa génnoon waaye dafa yaakamti pour ñëw because of respect time bi nga xam ne moom la loi moom la loi wax ne by ten o'clock ñëpp dañu war a dugg seen kër yi lii rek i c'est juste exemple moom as a security personnel génnoon na ñëw na ñëpp si ne on time so ñun ñëpp dañu war a respect time bi respect loi bi nga xam ne moom la dëkk bi taxawal toppaleen ñu fii si Sahel Network TV comme ni ñu leen ko waxee woon ne ñu ngi ni right now Independence Drive still now Independence Drive right now is empty am na benn rider boo xam ne romb nañu léegi léegi léegi léegi ni ku bàyyi xel di nga ko gis may bi mun na am is a security officers mais bi mun na am tamit du security officers comme ni ñu ko waxee rek curfew am na biir Gambia toppale ñu fii nii fan la si Sahel Network TV foofu ngeen ko mun a amee channel boo télé bi nga xam ne moom kenn weediwul ko fii rek ngeen ko mun a amee si biir Banjul curfew bi nga xam ne moo nekk biir Banjul fii nii bi pour ngeen mën gis yeneen place si jërë jëf Kasuwaaf yi noonu boor yooyu la ñu duganaat yes foofu lañ nekk nii right now ñu ngi Allen Street Allen Street mbeeda bi yëpp a ngi set mbeeda bi yëpp ngi set mbeeda yëpp a ngi set ñëpp a ngi set yes gis nañ ñoo xam ne ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi paak seen toogu yi nga xam ne mooy suma benn broda du ñaaka tamit xëj na du bugg a wax ak ñun because mu ngi daw loolu moo tax mënuñoo wàcce pour waxtaan ak moom waaye still now ñu ngi Allen Street Allen Street lañ nekk did Didam Allen Street, Fitzgerald, McDonald, Haddington, Hall Street so area yi la ñoo dem We set, comme ni ñu leen ko waxee rek naka la coffee wi naka la day demee Banjul waaw so ñu ngi nii nag Allen Street and then Primate ak so something just happened right there so am na loo xam ne na fii Johnson Allen Street ak Johnson Primate ak ah, sujaraat am mu ngi you don't know what's happening yes yeah am na koo tamit yes you understand understand so so that's it innit waaw booy waaw bu leen vidéo booy. waaw dafa jar vidéo booy. ah booy ah non jëlu la. waaw yow. ok non da nga leen romb sax nu fekk action bi loolu la ko bëgg a jàppale tànga maa dugg nii si paak bi. Yeah, sing that way for you. Policy will be all right. I'll do my land, but for now you video. Dada, bro, chico, regasso. How many cook cook are you going to move? booy buy forcé de. Eh, It's okay, brother. Detail to watch. Fun video. Detail dialogue. Wow, wow. Wow, get in now. Acha bro, correct. Kama dumana la boy, man la sua. Boy, man la sua. boy beneen vidéo moom. non non non non non vidéo wut la bu ñu wóor yi bro bro bu ñu wóor yi yow suma waay nga ah yow tamit bu ñu wóor yi mu neen ah suwa la boy ah yow tamit man dama la gis ma kër góor yow what's up man yéen a ngi cool ah what still now yéen a ngi gis ñu ngi fii nii ñu ngi Allen Street and then Albion Place so gis nañ fi ñoo xam ne ñu ngi doxantu xam nga so boy hello how na ngeen def yéen a ngi cool lu baax nag otherwise yéen a ngi fay from yan la Red Cross so da ngeen a dem pour pomper dëkk lan ngeen am puy wax as ah, a youth lan ngeen am puy wax yaa understand lan ngeen am puy wax ñi nga xam ne ñoo nekk Banjul they don't believe ne ah, covid 19 is real so lan ngeen am puy wax guys COVID 19 na doole fi mu nekk nii. am na ñu a demee. a demee. so li moo waral suñu ko rek si c'est a dëkk bi moo ñu a jóg nii because of xam nañ ne li is real te dañ bëgg a put in the people that ne this is what is loo xam nga so ñu ngi def lu nekk tamit pour nekk soo mu wàññee ko a mooy loolu xam nga so lii moo waral lii yëpp suñ génnee am tey def na sensitisation woon leen ne am coronavirus is real mm. am des tëkk real am tey dinañ wër pour pompe dëkk bi na ñëpp stay at home am mex ne ku nekk mu ngi sol sa max max bi am ci solo bu baax a baax a baax am ku ku gëmul coronavirus nag yaa ngi am sona sa boppa sona sa ay dëkkandoo sona sa ay ay mboka tey soo gëmul coronavirus euh, protect la sa boppa sa famille ak sa ñi nga gën a jege ñoo nga sonal because soo ko amee ñoo ñëpp dañ ko dañ leen a victimize so let's take this real this uh, coronavirus si yoon laa nekk ni ñun dañoo nekk di xaar nii léegi si gàttal si gàttal léegi soo dajee woon a police rek ñu laaj la da ngeen amee carte ou amee woon carte nag waaye am sometimes dañ dee mun a muufa gaay dañ ñëw personnel waaw parce que sometimes dañoo bi guddi bi dañoo taxaw waxtaan naka am nañu rapport bi ak ñoom léegi léegi dégg nañ ne Banjul xale yi dañ dee comme like dañ ko dee def comme lifi ogosa jël flow waaw lan nga am kuy war soo morom suñu morom ne ñoo dee def loolu am na maa ngi ne dugal si paa bi sax ngeen loo ah. xam ne lii dëgg moo leen tax a jóg am dañ légoo toog seen kër ñëpp relax gis nga foos léegi dañ daan gis ay benn benn di doxante si biir town waaye fu mu ni kenn ni sax dafa gis fii soo lii moo la woon ne am gëm ne lii nekkatul fi foo fi dëggantaan la ko gis nañu ñoo kii ñu ngi am nga ñu ñu leen a handulé so moo tax kenn nanguwut a nekk ay victime of ñu ñoo téye so ku nekk mu ngi toog keram mu ngi seet booba tur bi waat Abdou Karim la Abdou Karim thank you very much eh, jërëjëf kontaan nañu trop bro nakam la yaa ngi cool si loo nekk otherwise waaw yow bro yow gis nañ ne coffee bi mu ngi am si dikka bi waaw ba pare yaa ngi dox si mbedd lu war a ah. hmm. dama uyuma léegi ni laa génne nii. waaw avant suma sista bu ñëwoon nii moom laa doon jënd ji nii. waa solo sa max bi. waaw. gis nga bu solo sa max kanam la waaw sa sa solo sa max bi. bu doon naka la yéen yëpp jaam ah. Iya iya mm-hmm. waaw solo sa max. lan nga am pour wax ñi nga ne ñoo ne corona ñu ne corona amul am na sa benn boy bu taxaw fi di wax corona amul. déedéet kooku noonu. yooyu. Mm-hmm. corona téye mbokam. waaw wala kum waaw ku ne corona amul. mais mm, ah, bi mm. yow électrique na. dëgg la waaw. ba mm-hmm. corona am na fu mu nekk nii. koo mm-hmm. ne corona amul worldwide yëpp. Mm-hmm. na waaw. tur bi waat. Bamba. Bamba. Ndiaye Ndiaye yaa ngi baax. la Bamba. ku ne corona amul daal. mais bi uyu ma dafa am leneen loo waaye su la téye mu téye sa mbokk di nga am ne corona am soo léegi. ñu ngi def coffee yooyu yaa ngi dox xanaa di nga dem tëddi ji nag. a hmm. hmm. cof hmm. bi borom cof yi bëri nit. ko loolu tax sa time bi uyu ma bit sa fekk na ma tëdd. waaw kon a uyu ma jàppale suñ population bi. Mhm. ñu xam uyuma ñu rek la feebar bi nii ñu seet na xarañ ko refee bi ko effrité mu ngi gën a woos. Mhm. waaw te suñ ko seetaanee dafa gën a ufa. waaw léegi naka lañ mën a def ba mucc mun a mucc si feebar bi. feebar bi nii. ah mooy mhm. uyuma ndigal luñ teg. ñu jëfee ndigal. bàyyi tere. waaw maanaam ndigal yi mooy lan. ndigal yi mooy lan uyuma. suñ la nee uyuma. naanoo ko noon before ten nga tëdda mhm. nga tëdda mhm. waaw te nga lu bëri nga moytu karaw bi social distance bi moytu ko mhm. ah nga moytu uyuma population bu bëri bëri bi ah da gislante ñu bëree bëri daal moytu ko waaw léegi léegi kon léegi bàyyi ñu bàyyi la bala ñëw ñu sattaan balaa gars yi ñëw di la téye jërëjëf ah, ñoom duñ ma téye parce que su ma waaw léegi bomba dama dama xiif man waxtu dama moo tax ma génn. waaw léegi bomba dama nga ñibbi gaaw ba lañ laa tiir. bomba waaw yoon na uyu ma. waaw yéen a yéen a ko dégga ko dégga moom mu ne moom. mu ne mu ne mu ne moom mu ne moom mu ngee ñibbi yéen a ko déggandoor so ñu ngi nii Allen Street si naaw ñu ngi Johnson Allen Street ak Primer a Albion Place. so sinno Bamba mu ngi wax ak benn police officer police officer ba nga ko wax ne ko kii dafa dem tëddi so sinno comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi nii Johnson Allen Street and then Primate Albion Place si Johnson bi foofu noonu lañ nekka so am na ñoo xam ne ñoom nag diggante Albion Fitzgerald Allen Street ak yooyu noonu yëpp ñëpp raus nañ so ñu ngi woot kuy dem nag boo di Fitzgerald yooyu noonu xëy na dinañ ko fexe nit so boori Fijaral lo foofu la ñoo dem ñu ngi dem Fijaral foofu noonu parce que dégg nañ ne foofu noonu tamit nit ñi dañ fa dee nekk di riite wante ak police yi especially youth si so xëy na di ñàkk tam dinañ leen fa fekka noonu am ñi ñoo waxtaanal tamit waaw yeah so ñu ngi ñaan nag moo leen ko xam ne yaa ngi si mbedd bi ñu ngi ñaan fi nga dem tëddi jërëjëf Bamba kooku mooy Bamba yéen a nous ko gis. ñun Gambien la nous mun na ku kaw fi nous xamal la nous Gambien fan lay doomi haram nous ñooy isil di jël bro am na jàmm comme niñ ko nous rek ñu ngi dem still now ñu ngi ñu ngi ñu ngi Wards Allen Street Anden Fitzgerald nous lay ñëw because dégg nañ ne foofu noonu police yi normally dañ fa day ñëw di diite wante gars yi wala xale yi ñu xam nga rek try pour jël flow ak yooyu noonu some stuffs like that so ñu ngi nii nag so still now am na ñoo xam ne ñu ngi ñu gis sax ñu ngi so gis ngeen ne mbedda bi fu nekk nii still now ñu ngi fijaral lañ nekka ak den Allen Street still now ñu ngi foofu noonu am na ñoo xam ne ñu ñu gis still now ñu ngi ñu ngee daw soo dañ buggoon a xam rek gis ngeen mbeeda bi nu mel especially Figueral fii la Figueral lañ nekk nii mbeeda bi yëpp yéet na am na ñoo xam ne nag ñu ngi woon seen biir këri gis ni rek daw so I nu ñu ngi ni Johnson i Figueral ak New Street Johnson i Figueral New Street foofu noonu lañ so xana ma jëm a try ndax ndax mun na wax ak ñoom at least understand yeah gis ñu ngi daw naan ñu ngi dugga si biir kër bi I don't know ñu ngi nii New Street lañ nekka New Street ngi set ay ñetti nit ñoo fi nekka ñoo ñoo fi nekk fii nii pour daal lan nga am puy wax si coronavirus bii nii nga xam ne moo disturb dëkk bi. waaw. Mhm. Mhm. yes. boo daat am na ñoo xam ne. waaye sa lampa suma bët yi. Mhm. am na am na am na. na am na ñoo xam ne ñu ne Covid 19 is not real. I think they are sleeping. Because we have I think you are on track, but keep it on more. Keep amul waaye lu tax xamuñ because amuñ enough sensitization sensitization. So nañ dañoo teeteelu. Mm-hmm. waaw kuy loo ko mën a def. léegi lan nga am naka nga gisee kofiw bii nii. to some extent. Mundai Wahle is a curtailing of my fundamental right to move. Understand? Uh-huh. But at the same time, too, it's the responsibility of government to take care of me. By so doing, such legislation could be passed. And at the same time, my fundamental right is being curtailed. That is, I'm not allowed to move. That's not against my right as a human being. This. But you are doing it for a purpose. That is why I, that is what I understand. That's why I cannot take any step. But if it were done only because they want to do it, then I will stand my ground. So far, so good. Anyway. Thank you very much, Koto. Turbi. Turbi, okay. Turbi, why? Okay, just call me Mr. Silla. Thank you very much, Mr. Sina. Thank you. And who are you too? Abdullah Suare. Thank you, Abdullah Suare. Sahel Network TV. Sahel, Network. th thank you very much. All right, thank you. You're welcome, It was sir. nice talking to you. Thank you very much. Right now, New Street. am na yeneen ñaar ñetti booy yi nga xam ne maa ngi leen gis ñu ngi taxaw seen bunti kër yi dafa mel ni daal ñoom daal dañ pare bu doon daxal na yéen a ngi kuul odawaay yéen a ngi fay dafa mel ni yéen xam ngeen ma और तुर भी so gis nga yéen a ngi taxaw. dafa mel ni da ngeen pareel gars yi fuy jël sunu. non non non du loolu sax. ah. non non. agu leen foofu rek. Ah, fii la ñoo si biir awa tàng ma. ah ok so da a cil nii si biir nii fii naan ataaya. Ah, ok léegi nag a ngeen gisee Covid 19 bii nii. Ah. comme Covid 19 bi am na ñoo xam ne ñu ngi a ne ñii du dëgg ñii ne la. ah nga ñu ngi déggee Covid bi pour ñu gëm ko ren dafa am métti parce que ñu ngi dégg ay maire yi suñu maire yi dee suñu paa yi lay dëkk maa ngi fi dégg fi benn dëkk ñaareel bi tamit ñu wax ne ay man ma yede ko mo ñu wone ay ñu am cases fi ay container bi ngay de fi ban container mo fi de ñu ñu ki de ñu ngay de ay ay cases yi ay ñaata et di et puis 78 plus 5 78 plus 5 lu amé bi di bag fi fana no bon bon suma xamu de kenn sax dina xam ko xam kenn ya man musuma ay déggal ko xam kenn but cases mom déggal la feewar déggal mi am ci mi am ci gambia yu rek mi am bot ñu ko rek di waxe tamit so lu moy jaxal ñu soo dafa mel ni maanaam comme dee yi ñoo Banjul dee yi ne dee yi dafa bari. waaw dee yi waaw man ah. de. mën naa xam tamit waaye man man gis yëpp man tamit wax naa ne tamit oh, loolu moom dëggal. Ah, soo kon dafa mel ni yow dee bi gars yi di wax fii Banjul ni nit dee Banjul yow dafa mel ni gëmuloo ko. mënu ma ko mënu ma ko daal. jaaxal na ma daal parce que affaire bu ngi maa ngi dégg dégg ak dégg comme ni ma lay déggee dégg bi ma lay déggee dégg fii ak ma lay déggee dégg bi si si aw ma lay nga man ma lay dégg maa ngi resi ay voice note ñu ma wane ñu ay dégg ay conteneur di ñoom mm-hmm. ñoom parce que ñun xam ne dañ nekk daw nga naaj boobu ñu nekk dañuy jaaxal yoon bi wala boo tamit xam nga xam ne ñoo xam ne bëgguñ ne Covid Covid 19 amut coronavirus amut. lan nga am xel am na amut daf dee mate di mate du ko loxo am na amut du ko jox loxo fagaru gi fay am na amut daal bàyyi sa xel rek amut. ba ba mu dee ba mu leen amul rek yow seet. léegi yan fagaru lañu war a jël. comme ni ñu comme ni ñu ko gaaw a waxee noonu marché yi social ñu bàyyi ñu bàyyi ko xel government bi li yëpp ñu bàyyi ko xel ñu bañ tamit ah di ah di offense ah government bi loolu moom gannaaw tamit trop macha allah ci bi. curfew bi ba gis mu ngi lifin waaye boo tamit tamit tamit xam nga man man man fay man moom faj ma. nga parce que man teel tere moom wulu ma ko bon moo nekk suma xel parce que moom damay jàmm parce que loolu la koy wax parce que dafa nekk nii waaye tamit ma jàll affaire si comme nawet bi nii parce que waaye léegi xanaa en mag si comme gis naa nag mag si tamit mbiri mag si dégg si wàññeeku trop parce que léegi fu nekk nii affaire si coow yi sax fu nga gis leen nawet maa ngi la mën a gis kenn waaye day taw du ma gis kenn aussi dëkk bi di leen di ay max so moo tax affaire si daal garaaw na trop so lan nga am puy wax maanaam daal si sa biir wax dafa mel ni coy daal ñoom a match dañ ko def fula affaire match hmm. non daa ko fula parce que maa ngi gis si biir bi biir bi maa ngi ci boo wàcc yi nga di wàcc moo dee ci ma wax tamit gaa yi moom fii maa ngi dégg mu fii ñu kees kees ñu ngi def loolu moom ñu wax man hmm. jiri jarawoon jiri jiri jarawoon jiri jarawoon waaw tànk moo jiri ay abba jërëjëf nakam nag yooyu daal mooy booy xam nga ñoom dem fa ne léegi covid 19 covid 19 bi comme xam amul daal xam nga fooy la booy yu bëri ci dëkk bi loolu lañ foog man lu ma wax gars am na de dëgg la xam nga léegi egg si na Gambia because léegi kees yi sax ñu ñee jënaa tànga yokku man lu ma wax gars wax wax daal na gars yi oytu xam nga lii de mu ñu fii xam nga ba booy di lii naka gëmuñ ko because ñoon dem fa nekk commune bi dañ ñu si uti xaalis fekk du loolu lii léegi dugg na de nañ oytu because gis neen ay Amérique ak yeneen dëkk yi bi nineteen bi def xam ba léegi mënu ñoo am lii bi bi so ma wax daal nañ oytu rek because am na fu Amérique mënu ta stop lii foog ma ne Gambia yàlla si ñu jàppale wutee mun nañ koo stop de waaw man ma wax daal booy nañ oytu lii dëgg la lii dëgg la de dëgg la dugg na Gambia fii waaw dugg na léegi because léegi kees yi ñi ñooy gën a yokku. Moustapha thank you very much Moustapha Singate thank you very much yéen lu Moustapha wax COVID-19 is real ñu ngi leen ñaan ngir yàlla ak yeneen tëbi nañ jël suñu still now nak ñu ngi ñu street di dox nak fu seet nak la ñoo gisee bañu comme kof yi fii naka la mel amna yu so xam ñu seen kër yi di di di him ataay amna ñoo xam ñoo dañu ñoom taw ci a taxaw si mbedd bi rite wante coy su waaye nag gisaguñ benn rite wante si diggante bi wa topal leen ñu nak di ngeen gis xagn na di ngeen soo lañu topé di ngeen si am moo lu gina leer fi fan la Sahel Network TV tey si biir Banjul fii nii lañ nekk muy affaire curfew bi nga xam ne moom nañoo def biir Banjul fii nii réeréwun bi still now ñu ngi ñëw street di dox na puy dem si yeneen place yi si nga xam ne biir Banjul fii nii na ñu ngi nii diggante Allen Street and then Johnson New Street foofu noonu lañ nekk ñu ngi mu ngi empty gisuñ kenn xanaa New Street rek gis ay nit yi nga xam ne ay boys yoo xam ne ñoo doon tiim ataaya si mbedd bi so still now ñu ngi nii Johnson fi kon so ñu ngi try na pour ginnaaw dugaat si biir dëkk bi dinañ duga boori McDonald boori Stanley Lancaster ba si beeraan area yooyu noonu yëpp anten ab day dañ fa dem set seet yeneen places yi nga xam ne naka la mel toppaleen ñu rek fii Sahel Network TV waaw buy coffee bi biir Banjul ñu ngi nii nag Johnson Grand Street and then Fitzgerald foofu noonu lañ nekk gis nañ benn moto I think taxi driver la mooy private car waaye moom dafa mel ni mu ngi jëm a roos kuy dem kër ñu ngi ni Johnson yi still now ñu ngi Fitzgerald Anden Long Street foofu noonu lañ nekka there's a private car BMW kenn xamul nag lan la moo def te mu ngee moom tam mu ngee dem nag noonu dafa mel ni moom dafa paak motoom bi daal still now still now ñu ngi kijaral diggante kijaral ak ameen ten space foofu nekka woon fi dem boori ak gaay bëri gisuñ kenn si mbedd bi gisuñ kenn kenn kenn kenn kenn si mbedd bi fii nii diggante kenn street ak yooyu noonu boori ah, pictin boori yëpp di xool waaw di xool di caméra yooyu noonu am na ñoo xam ne moom ñu ngi ñu ngi enjoy seen boppa seen biir néeg si seetaat seen télé xanaa ñoom ñoo toog rek di enjoy daal mbedda bi daal di seen frontière di enjoy ritéwante bi ak policier ak gars yi si yooyu lañ nekkan still now ñu ngi ne boori boori Ken Street Johnson yi woon Loof Johnson bi foofu noonu lañ nekk biir Banjul jël baa ñu ngi woor kuy dem booli alen boori lasuwaaf yooyu noonu foofu noonu lañ nekka lasuwaaf ni boor boobu noonu nekka ñu ngi dem nag di woor immigration department bi fu mu nekkee noonu seen post department bi fu mu nekkee boor yooyu noonu nekkee ni boori lasuwaaf ak yooyu noonu waaw stin naaw gisuñ benn gisaguñ wite wante comme yu gars yi dee wax kon biir Banjul ne xale yi dañ dee wite wante police yi bot still now gisaguñ bot mbeeda bi moom mu ngi empty ay benn moto nga dee gis ñaar benn moto nga dee gis benn moto rek police officer boo xam ne mooy nañ romanteel ni bu yàggut mais so ñu ngi boori la suwaaf still now li si wax lañ nekka am na si ñoo xam ne nag ñoom ñu ngi aju seen taax yi dugg leen gis am na si ñoo xam ne ñu ngi yundoo ñoom ñu ngi aju seen taax yi léegi noonu di enjoy mbeena bi waaye daal dañ ragal ak kii na daal because bitig yëpp tëj nañ ñëpp tëj nañ seen bunti kër yi am na ñoo xam ne nag moom ñu ngi seen bunti yi am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi ubbi seen frontière yi pour mun a sabun comme ni gars yi di wax reading and listening ñoo dee am gis gaa yi gisaguñ ko nag parce que nañ ne xale yi tamit dañ dee riite wante ak politique so ñuy ñaan rek parents yi yaay papa yi ñu advice seen doom yi parce que xale def li ñuy def noonu jaaduwut because nguur su ne ne jaaral nii jaaral nii toppa ko rek jaar noonu waaye nekkul ne tamit ñu bàyyi suñu xale yi tamit ñu riite wante si parce que si suñu leen jàppee rek problème la ñoo aussi te ñuy ñaan rek suñ yaayee suñ papa yi ñu ñu ñu waxtaan ak xale yi ñu gën a tamit ñu raxas seen loxo yi raxas seen loxo yi doon set ëllëg sa tamit ñuy def ñuy sol max yooyu noonu tamit ñuy def social distance xale yi suñ jii ñu ko gis ñu gën sax nañ traay tamit ñu raxas seen loxo yi maa fi gis ma am yenn am yenn police officers ñu fi toog ñoom tamit ñu ngi ñoom tamit ñu ngi ñu ngi teg seen ataaya it's just like I mean they uh, the immigration officers ñu nekk fii boori la suwaaf still now ñu ngi nii la suwaaf la suwaaf lañu nekka ñu woof ñu dem boori suwaaf so gis nañ benn waaye bu gaaree moom moom mu ngi sol maxam nag waaye dafa mel ni ko toog si waaw ñu ngi nii la suwaaf boori podion normal lañ nekka nii area boobu noonu lañ nekka waaw كل مقام هي الإنجيل بالبابل ماغي نان سما ياتا سما تراي ñu waxtaan ak xale yi xale yi suñ génnee nañ ñëw suñ ñëwee si kër gi nañ tray ñuy raxasu ak seen loxo yi pare also tam ñuy tray ñuy sol max ñuy dafa mel sama yi ñooy ñëw jiitlante nii di Red Cross personnel comme ni ñu ko doon waxee rek Banjul dañ dee pompé dëkk bi ñu ngi pompé koñ yi mbeeda yi biir kër yi so ñu nag gars yi ñoo àndal nii muy Red Cross yi so definitely ñun moom amuñ dara lu ñu wax waa Red Cross di leen wax jërë ngeen jëf ñoom ku leen xool ñun ñëpp a ngi def takk seen max ngir pompé mbeeda yi both side left and santa mu nekk la ñoo pompe ak moto yi nga xam ne sax ñoo paak si mbeeda bi so kon nu ñu ko waxee rek lu nekk la ñoo pompe fu nekk right now ñu ngi nii lasuwaaf diggante lasuwaaf lañ nekk ñu ngi nii jillante ak gaay Red Cross yi ñoom pompe even sax si biir yi sax ñu ngi faa pompe am na kenn ko xam ne mu ngi moom mu ngi enjoy Red Cross yi si parantéram bi muy la la Lasuwaaf fii nii lañ nekk la Lasuwaaf lañ nekk still now gaa ngi pompé even lampi pole si ñu ngi ko pompé definitely Red Cross are doing mu ngi def a good job Red Cross people are doing a great job banjo Red Cross so definitely they are doing a great job wall shake bu nekk la gars yi pump pompé yeah still now ñu get la suwaaf I mean, Wellesley Johnson yi la suwaaf ak Wellesley foofu lañ nekk nii Johnson yi la suwaaf ak Wellesley Come niñ leen ko here. For the lañ nekk the pump pompé du ñàkk tamit xëy na dina am koo xam ne dina wax ak moom si gars yi Red Cross yi fii tuuti at least ñoom tam ñu wax ñu lan mo waral pompe bi ni ci biir dëkk bi fii nii biir bro na nga def tur bi njaga njaga xafna xafna njaga gis nañ ne ngeen dox di pompe euh, Banjul lu waral pompe boobu noonu ok Ya, thank you very much bro It's is just Red Cross mm -hmm. in collaboration with waa Banjul ñoo ko def suñ digale chairman Jaxate ñoo nekk um, if you don't mind are you mm-hmm. going live yeah okay um, like ñun dañ am ay procédure like interviews we do it like chairman bi nga xamante head operation Mama, moom moo war Solomon Agis Chairman Jahato, but nonetheless, um, on behalf of the group, man luma mën a wax mooy we're just it around and fumigating to disinfect places place yi nga xamante ne comme public place la daal comme ñun suñu liggéey comme ñun loolu lañ nekk di contribute towards the fight of COVID-19 but if you can meet um, Chairman Jahato he will tell you more about the fumigation and what you're planning to do everything here. Well, just a little bit, bro léegi gis nañ ne kon lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñooy seetaan nga xam ne about this COVID-19 because ñëpp a ngi wax ne COVID-19 is not real so lan nga am pour advice ñi nga xam ne ñoo ko wax yeah COVID-19 am um, is a hmm. um, is real COVID-19 dafa nekk loo xam ne right now moo nekk additional world bi um, man persona bi dama dee wax benn wax ne um, soo bëggee wax ne COVID-19 is not real then you need to analyse it ne world bi yëpp duñ mën a politique si benn kàddu understand nga Maka Rome America China xam nga place yi yëpp a politique si benn wax ñoom yëpp ñu d'accord si benn kàddu ne dañoo nax nit ñi si lii so COVID-19 is real and it is um, very very dangerous it is killing people so dañu war a bàyyi suñu xel loolu jërëjëf bro still now comme ni ñu ko waxee rek COVID-19 is is a pandemic is so nag a ñaan rek comme ni mu ko waxee rek na ku ñuy raxas suñ loxo yi ba pare ñuy takka suñ face mask yi always fu ñoo dem tam ñuy def social distance ñu moytu public gathering si tamit still now ñu ngi nii weles la ñu ngi ànd ak jiblante ak gars Red Cross Banjul Red Cross Society ñoom na ñu ngi pompé dëkk bi vuus si yëpp la ñoo pompé still now foofu noonu lañ nekk weles li anden la suwaaf ñu ngi ni jiblante a gars Red Cross si ñi nga xam ne ñoom ñooy pompe dëkk bi ñoom tam ñu ngi ànd ak seen seen seen yéen a seen mons ñu ngi pompe Johnson si bu yi fan la booy dee toog comme nu ma ko dee waxee rek man tam maa ngi ñaan suma mbokk yi ndongo yi nga xam ne ñoo dee toog si bu yi ñoo dee toog si ghetto yi man tamit am naa benn word of advice boo xam ne dinaa ko jox suma booy mbokki ndongo yi ñi nga xam ne ñoo dee toog si bu yi ñu ngi ñaan ngir yàlla ak yeneen bi te tokati mbeda nga tokati vunga nañ leen tra ñu tra ñu am suñu face maxi yi para ñuy raxas suñ loxo always ak sabu buñ ko rusé ak ken buñ ko rusé ken ku ñu si fu bi nañ ko wax ne ko booy raxasal sa loxo bi wala solo sa face maxi bi para suñ toogee si vuu boy. nañ try ñuy def social distance ñuy def social distance suñu jaralé sax suñu him ataya sax na ku nekk si sa kaas ñu saaf la ci nga naan ataya so lolu suñ ko défé rek am nañ yaakaar ne feebar bi dina fi wàññeeku waaye suñ ko deful rek affaire si mën nañu ëppal loxo te lan lañ mën a def lii rek lañ mën a def pour mën a sauver suñ boppa mooy lan ñuy raxas suñ loxo yi always di sol suñ face mask yi ba pare ñuy moytu gathering yu bari yi ba pare ñuy def social distance loolu rek lañu loolu rek moo ñoo mën a muccalloo si covid 19 bi nii bi nga xam ne pandémique bi nii nga xam ne moom la ñoo digga moom nga xam ne moo sonal wool bi yëpp sonal àdduna bi yëpp even nga xam ne ñi nga xam ne dañ waroon a waaj sax pour dem aji ji màkka mun nañoo dem so COVID-19 is real so ñu ngi leen ñaan ngir yàlla ak yonente bi nañ jël serious measures pour loolu nan lañ ko mën a defee mooy lan ñuy sol face mask ñu ñuy def social distance après ñuy always ñuy raxas suñu loxo yi jërë ngeen jëf comme still now ñu ngi welesli ñu ngi seet comme coffee bi nga xam ne moom la government dugal si dëkk bi still now gisaguñ nag police yi ak parents yi di rité wante ak boy so because lolou lañ dégg fi né Banjul police yi booy police yi dañ di rité wante ak boy but still na gisaguñ lolou gisaguñ ko wax diga neex yalla sino ñu nga Wellesley nak ñu ngi dem Wellesley yoy nonu duggé ak boori jën Sénégal aga boori police line ak yoy nonu duggé boori McDonald duggé boori Stanley Street Hope Street ak yoy nonu yépp ngi nii jëm Sénégal gis nañ ne jëm Sénégal is fu nekk nii only the Red Cross personnel rek a fi nekk ñoom rek ay dox di pompe Red Cross yi rek a fi nekk ñoom rek ñoom ñoo nekk fii nii nga xam ne ñoom ñooy pompe Johnson si mbeeda yi ak yooyu noonu bunti kër yeeg moto yi nga xam ne ñoo fi paak sax ñi nga xam ne ñoo paak si mbeeda sax Red Cross yi ñu ngi leen a pompe wax dëgg ne yàlla lii rek lañ mën a def fu mën a sowe suñu boppa ak lan lañ mën a sooyewaat suñ boppa foog ñu ngi raxas suñ loxo yi di sol max always suñ génnee wala always suñ xale yi suñ doom yi suñ génnee nañ mu di fompa nañ mu di raxas seen loxo yi raxas suñ loxo yi ba pare ñu moytu public gathering yi ba pare xale yi tamit ñu dimbale leen si max always loolu rek a ñoo mën a sawee loolu li nga xam ne mooy feebar bi nga xam ne mooy lëmbee dëkk bi waaw still now nag ñu ngi jëm Sénégal ñu ngi ñu ngi jëm Sénégal bi léegi nag ñu ngi jëm Sénégal nii si boori jàkka bi ah jëm Sénégal moom mbedd bi de moom set na gisuñ fi kenn yëpp wér na benn meer rek lañ gis koo xam waaw waaye génnul si mbedd bi waaw so ñu ngi leen ñaan rek ngir yàlla ak yonent bi comme ni ko ni ko ni ko nguur gi waxee rek nañ ko defee noonu waaw lii rek lañ mën a def pour mën a sauver suñ boppa mooy lan ñuy sol face mask di raxas suñ loxo yi ba pare tamit ñuy def ah, ñu bàyyi so ñuy bàyyi public gathering yi ba pare ñuy def saa ñu toogee si vuu yi rek dañ def social distance always loolu rek a ñoo mun a sawelloo si nga xam ne feebar bi nga xam ne moom moo lëmbee dëkk bi waaw still now ñu ngi jëm Sénégal and then am na ñoo xam ne ñoom na ñu ngi ubbi seen parenteer yi ñoom di enjoy mbeda bi waaw fi bugg a gis rek para yi ak riite woon di ak wax bot wax dëgg ne yàlla moom gisaguñ kenn mu nekk nii moom ñu ngi boori box bar road box bar road lañ nekka boori boks bar road lañ nekka nii ken kenn gisaguñ kenn fu nekka nii box bar nag moom mu ngi empty wax dëgg ne yàlla empty ñëpp a ngi seen biir kër yi leen moom xam naa ne respect nañ curfew bi am respect nañ ko trop trop trop is almost Furekani, almost 11, 11, 1140. Sorry, 1040 nekk nii ñu ngi nii nag di dugg boori Tabakuroot boori Tabakuroot lañ nekk tabak Tabakuroot lañ nekk ñu ngi koof na puy dem boor bi nga xam ne mu nekk boori campement route am nañ si ñoo xam ne nag gis nañ ñu rek seen daw foog na ñu nag ah, ñun nag police officers lañ tëj nañ seen bunti kër ya dañu seen rek daw so dafa mel ni ñoom daal kofiw bi daal jafe jafe fulal nañ ko daal so ñu ngi dugal Tabakuroot koñ bi nga xam ne moo nekk koñ bi koñ bi nekk si digga bi mooy Tabakuroot foofu noonu lañ nekk waaw still now ngi biir Banjul kuy seet affaire bi nga xam ne moom la moom la moom la nguur gi tëral seet ak den affaire pandémique bi nii naka ko nit ñi jëlee ñu ngi nii nag Tabakoro Tabakoro si ban koñ lañ nekk nii mooy koñ bi nekk si digga bi foofu lañ nekk still now ñu ngi foofu noonu waaw foofu lañ nekk ñëpp fii nag moom mbedd bi moom mu ngi empty on ni moto rek ngay gis yëpp ngi emti doo gis kenn xanaa ngay gis ñi nga xam ne ñoo toog seen état kër gi di naan ataaya ñooñu rek lañ fi gis waaye daal ñoom ñoo nit ñi daal am na ne ñoom ñu ngi tëj seen bunti këri yi nekk si seen état yi foo naa ne loolu daal mooy jaama ji waaw ñu ngi nii nag di koof puy dem tali Fabala boor boobu noonu nañoo koof nii puy dem comme ni ñu leen ko weere affaire koof kofi bi naka la ko waa Banjul jëlee na ñu ngi ko jëlee seriously na nga ko ndax ñu ngi ko jëlee comme like a job so daal still now ñu ngi nii some people ah am na ñoo xam still now ñu ngi tabax road still now ñu ngi tabax road ñu ngi ñu ngi tabax road dafa mel ni still now ñu ngi tabax road ñu ngi tabax road waaw ko ñu faabala lañ nekka nii foofu nañ nekka suma bro bii de moom tëjee woon nañu na moom ak boori Allen Street fi jaral muy Bamba maanaam moom ak si na kiram dugg na kiram am na ñoo xam ne nag ñu taxaw seen taax yi nag moom di enjoy di enjoy di enjoy mbedda bi noonu at am na ñoo xam ne dañu seen rek daw dañu seen rek daw so dafa mel ni daal gars yi fulal nañ affaire si fulal nañ ko fiw bi trop fulal nañ ko te naaw na ba léegi ñu ngi tabaak root ñu ngi ñu ngi nii tabaak root ba léegi tabaak root lañ nekk nii de ñu ngi boori boori Marcos Garvey boori Marcos Garvey boor boobu lañ nekkee boor boobu lañ nekkee diw koof na puy dem ci nga xam ne mooy koñ bu nekk si digga bi ni ko waxee rek am na ñoo xam ne ñoom ñi nga taxaw si seen tax seen parenteer yi moom di enjoy mbéda di enjoy mbéda bi eta kër daal Tobacco Road ba léegi comme niñ ko waxee rek curfew bi moom is real curfew bi moom waa Banjul fulool nañ ko trop trop trop trop trop trop fulool nañ ko waaw soo ñuy ñaan rek ñi nga xam ne xale yi nga xam ne suma mbokke ndongo yi nga xam ne ñoo de rite wante ak police yi nañ jéem a bàyyi loolu loi bi daal am na lim tëral nañ jéem a respect loi because ne kii la war laa yóbbu sa sa fu ba génne di la fayal five thousand dalasi five thousand dalasi boobu am na leneen lu mu ci biir kër gi waaw ñu Tabakoro still now ñu ngi dem boori du koñi FM straight boor boobu lañ seen parenteer yi am na ñoo xam ne moom ñu nga toog seen bunti yi xam naa ne toog si bunti gi moom rek daw ne parax ko seen lay wa am سنر لي وابانير أمنيا وابانير منكفي وبي torop torop torop طرب طرب still نيني بوري Efrim by street we watch freedom nga ñu ngi watch freedom boori Daawda bor bobu la ñoo demee boor comme ñu ñen ko waxé won rek comme approche police at the street dafa mel ni public gathering tamit social distance jigéen ñi su si kër yi saa yoo xale yi ñëwee rek xar seen loxo yi comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi nii Tobacco Road si naaw génn Tobacco Road koñ bi nga xam ne moom Fufu nonu rek lañ nekk ni tabakuroon moom ken kenn wax dëgg ne yàlla gisuñ gisuñ benn rité wante nag gisaguñ benn rité wante waaw amna ñoo xam nak nag ñoom seen paranteer yi lañ ibi rek taw di enjoy bi mom wa diga ne yalla so amna ñoo xam nak mom ñu ngi yi di duga koy ne dañoo duga seen saa ni mun a enjoy seen boppa tuuti at least ndax mu tane because tamit easy wut waaw a dëgga ne yàlla mm-hmm. bi nga xam ne moo foofu noonu lañ nekka Tobacco cité wonté ñëpp a ngi nekk indoors dafa melni ñom fulal nañ ko fiw bi assalamu alaykum ya boy na ngeen def na ngi fane naka ngeen gisee Afrique bi ni waaw sant yalla rek sant yalla rek comme ni ko gars yi waxee ñu defee ko non dal mom moy moy baax baax ci toi waaw comme ni ko gars yi waxee comme ni ko loi bi waxee da gaay top waxu loi bi rek ñu defee ko non du am benn problème waaw mais bu fekkee da nga jéggi loi mom loi bu délé sa ko tamit loolu waro wax waaw kese moo fi nekk. tur bi sëñ bi. ah tur bi. Mohamed. Mohamed Cissé. Mohamed. waaw ah. ñii ñu ne coronavirus amut. waaw ah. am na ñuy wax loolu. te du ñàkk yow dégg nga ko. lan nga am pour wax ñu ñu noonu ñi nga xam ne ñoo ne coronavirus amut. non dina mate du mate yëpp bu ci dugal sa loxo waaw ah, dina mate du mate bu dugal solo loxo ñii ne na am na ñii ne amul yëpp bu dugal solo loxo waaw comme que moom nee na toog leen toog leen waaw man daal loolu laa ci léegi lan nga am pour loi mu ne ñu tok buñu génn 10 heures na duko seen kër wa mais 10 heures bu jëlé comme que loi nee 10 heures bu jëlé togal sa kër 10 heures bu jëlé togal sa kër lool kese la amul leneen 10 heures bu jëlé togal sa kër bu lay defee leneen loi nee la 10 heures bu jëlé togal sa kër 10 heures bu jëlé togal sa kër mais 10 heures bu passé nga do su mbedd bu la loi jàppee ya pen sa bok lool kese la amul leneen. lan nga am puy wax ñi nga xamné sa mbokki ndongo yi suma mbokki ndongo di rité wonté police ci mbédal non lool mom ku nekk sa dessin la rek waaye li ma ci wax mooy 10 heures bu jotee tok len sen kër restez chez vous tok len sen kër tok len sen kër simple. naka lañ mën a def pour si mucc si feebar bii nii. ah ah ñaan yalla rek. fièvre bo xam dara gis doo ko gis. do gaay yi ne takk masque nag takk masque rek loolu kese la amul la di def lan di raxas suñu loxoy yi. suñ loxoy wa ak lan. ah wa comme du ko gars yi waxee rek. surveillance distance xam nga raxas loxo yi kese amul la comme ñu nako comme ñu nako doy gandor mbokay suma mbokki ndog bi wax na len ko mune ne ne tray ñuy raxas suñ loxo yi ah. di sol suñ maxi ah. di moytu social ñi def ñu bay social gathering bi ñi def social distance wa ye ye waaw jere jëf amul ah, leen ñaan yalla nak mu mm. jele ko fi ñaan yalla na ñop ñaan rek comme wax fer boo xam ne gisoo ko gis deg rek nga ci am ah nañ ñaan yalla suñ borom mu jele ko fi rek comme ko ñaan lañ am kay nañ ñaan rek yalla jele ko fi tour bi waat mohammed Mouhamed jërëjëf Mouhamed. jërëjëf waay. dafa mel ni da nga ragal gars ah comme que ñu mooy loolu kay nañ rek. comme waxee. digal ngeen ko. toog leen seen kër yi toog leen seen kër yi loolu lañ wax ba pare ñuy sol max ñuy raxas suñ loxo yi loolu rek a ñu mën a sawee loo si feebar bii nii soo ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla ak yenente bi toog leen seen kër yi comme ni ko gars yi waxee toog leen seen kër yi raxas leen seen loxo yi. ba pare di sol max ñu ngi nii na fii tabakuroot koñ bi nga xam ne moo nekk koñ bi ñu doyoo koñ bi nekk si digga bi foofu noonu lañ nekk nii toppaleen ñu si Sahel Network TV Kofiw bi biir Banjul naka la moo demee चले गया ये तो सहेल सहेल सहेल yéen a ngi kuul ah, ah lu xew dafa am lu xew wax da ngeen a jël ngelaw ngeen teg si kaw waaw ah, foofu ngeen de foofu ngeen de aju daal di jël ngelaw gu neex gi ye ngeen am kuy wax na ah

di sol max di raxas seen loxo yi kon ne nañu def loolu toog leen seen kër yi comme ni ko waxee rek ñuy raxas seen loxo yi moo koy ñu ngi nii nii fii nii stil naaw ñu ngi Tobacco Road fi nga xam ne moo nekk koñ bi nga xam ne moo si digga bi foofu noonu lañ nekk nii stil gisaguñ nag benn benn police officers bi nga xam ne comme ni ko gars yi di waxee di riite wante ak gars yi Definitely. Let's go. Neither them not do what Hindu didn't them Boris called in because Ufler Agbori police line because Boru will in the dig and Ufler hit one day at Halay de Neka. So didn't try the Boru will share Nakala Boru in the Mele. Meaning nobody banding not in Neka still now. Banding not in Kabak Road, people in the Neka. Then you go to the Boru Bandit Central and in House Street. बसुआ of Stanley Street corresponding corresponding for them was still now ngi Banjul North mooy Tobacco Road foofu noonu lañ nekk ñu jëm a seet situation bi situation bi nga xam ne mooy lan kon fi mooy mooy curfew bi nga xam ne moom la ñoo wax si biir dëkk bi naka la ko waa Banjul jëlee naka la ko waa Banjul jëlee ak Gambien fii naka lañ gisee cof yi bii nii ñu nekk Bantoul foofu noonu lañ nekk fii naaw dem boori Banjul central Banjul central four minutes to four minutes to fu nekk nii moom la time bi def ñëpp dugal nañ seen kër yi ñëpp nañ seen kër yi dafa mel ni coxu yi gars yi ñun ñu fulal nañ ko biir Banjul fulal nañ ko trop fulal nañ ko biir Banjul dugal bala ñoo wax ay ten ñëpp dugal nañ seen kër yi kon dafa mel ni Banjul ñoom fulal nañ coxu bii nii nga moom la. kii de bu nga ndaw waaw waaw bro so comme ni foog ñu troyé am na ko bro nakam yaa ngi cool si loo nekk nag yaa ngi cool ah ye Sadio moom dafa mel ni koo xam ne bëggut a wax ak ñun waaye ñu ngi nii comme ni ñu ko waxee rek boori la su wax fii nii lañ nekka das Crabbe Island School boor boobu lañ nekka and then police post bi fële ni la nekk muy boori Crown Baylan foofu noonu till now ñu ngi nii boori Crown Baylan boori boobu nañu nekkee mbedd baa ngi am gisuñ kenn gisuñ benn nit gisuñ benn mutu moto yi rek lañ fi gis am na ñoo xam ne na ñoom nag ñu ngi ibi seen palanteer yi di xool naka la ko fa situation bi demee wax dëgg ne yàlla so sëñ suma mu ngi leewul am na suma benn bro ma gis na moom mu nga taxaw fële aju di enjoy mbir rek bro naka nag yaa ngi cool waaw otherwise lef jaama dafa mel ni gars yi tax nga laaxu de ah waaw dafa mel ni affaire si isi wut de waa tur bi nag maam naka maam Saliou Ndiaye naka nga gisee feebar bi ñoo xam ne moom la ñu wax si biir dëkk bi muy Covid 19 bilaay dafa doy waar de. waaw yow dafa mel ni solo loo max. waaw ana max wax sol ko ma gis. sol ko non non ah yow dafa mel ni solo loo max bi de ah waaw ana max bi. comme niñ ko waxee eh? rek moom solul max bi waaye mu ne mu ko amee si biir kiram so ñu ngi nii boori Kara Baylan foofu lañ nekk Lasuwaaf am na ñaari xale yoo xam ne nga ñoom ñu nga ne la taxaw comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii live biir Banjul Sahel Network TV ñu ngi leen ñaan ngeen comment on Facebook bi naka ngeen gisee programme bi naka ngeen ko gisee fii nii biir Banjul fii nii muy kafiw bi nga xam ne moom lañ tëral moom la nguur gi tëral naka ngeen ko gisee so ñu ngi leen ñaan rek ngeen comment on Facebook bro nga ne naka nag yaa ngi cool so waaye yaa ngi fine so naka nga gisee feebar bi nii ah. maa yaa ngi raxas loxo yi yaa ngi everything lu mel naka mm-hmm. Ya. léegi ñu né feebar bi amul lan nga am pour wax ci loolu ñi ñi am na ñox ni ñu ngi ne bi amul lan nga am pour wax loolu ah non bu am na mhm. am nga boy ya nga mhm. eh, boy ya nga am nga so lan nga am pour wax sa mbokki lan nga am pour advice dan ko dem ah, hmm? ah kenn kenn yaa ngi tri rek kenn daa wax nga ah, pour kenn yaa ngi ba pare lan nga am pour wax ñi nga xam moy mooy maire yi nga xam ñoo nekk ci kër yi ñoo amee xale yi lan nga am pour wax leen. ba pare xalé yi di raxas seen loxo yi. jërëjëf bro tour bi waat. mom dafa melni ya ngi laahu le dafa melni gaay la dawlo ha ha mom dafa melni gaay ko dawlo comme niñ ko waxee rek ñu ngi ni fini lasuwaaf boori Karaabay la comme ñu ngi leen a ñaan rek ngeen comment on Facebook Sahel Network TV la fii si biir Banjul about curfew bi moom la ñoo seet comme naka la fa demee biir Banjul parce que diiga nañ ne xale yi suma mbokki ndongo yi dañ dee riite wante ak police soo so maa ngi leen a ñaan de ngir yàlla boos nañ stop loolu nañ def la la luwaa santaane suñ ne luwaa mu ne ten o'clock na ñëpp duga seen biir kër yi na ñëpp duga seen biir kër yi dina ñaan ngir yalla ak yonente bi boy si tok leen seen kër yi ten o'clock na ñëpp duga ñu am suñ bopa jamono ñoom ba always boys nañ try ñuy raxas suñ loxo yi suñ toogee ci vuu yi nañ raxas suñ loxo yi sol suñ face mask ba pare ñuy def social distance loolu rek ñu mën a sawee biir rek ñu mën a si feebar bii nii mu nga xam ne moom la dégg àdduna ndër képp am na gis naa fi suma benn bro du ñàkka xëy na tamit du ñàkk pour ñu pour ak moom yeah bro naka nat yaa ngi fine otherwise yaa ngi cool bro naka nga gisee feebar bi nii covid 19 naka nga ko gisee dafa bëri waaye bro yow soluloo max saluloo ko anam max bi mu ngi si néeg bi waaw yaa Oke, doxantu ok si police station bi nga jógee lan nga am puy wax ñi nga xam ne sih. lan nga am puy wax Gambien about feebar bii nii feebar bi daal protect ñu ko mën a protecté Jadi ñu nekk benn place yore ñu dimbale suñu boppa si comme lay nga dem Sénégal xam ah, ñëw Gambia dellu Sénégal xam ah, nga ñëw Gambia loolu daal un problème bi parce que feebar bi soo ko seetluwee Serekunda Brikama Banjul la nekk countryside amul ko. mooy Greater Banjul. waaw understand soo demee si countryside si ñoo amul ko Banjul la Serekunda Brikama. fii la nekk understand so mu ñu mu laa woon ne population bi fam gën a bëri foofu la feebar bi nekk te population bi lu ko dee indi mooy dem ak a ñëw understand moo tax feebar bi foofu la nekk problème bi yëpp foofu la bi waat Ibrahima Ibrahima léegi lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñu ne feebar bi amut non am na اعتبر بأمنك وأمنك naka lañ mën a def pour suñu suñu bopp nga xam ne feebar bi duñ ko am. loolu li ma laa wax nii mooy nañ state yi wan nañ state yi waaw feebar bi nekkut ne ñun Gambia ni ñun ñu ne ñoo ko lu indi suñu bopp te feebar bi amutoon fii kon bu tabaski approché nii boo dayee yii nii woo yaa yaa open everything was so easy. Understand? Niti yange demakanyo. And right now, even people are going and coming. Hmm? Understand? So kuko am akuko am, you never know. Understand? So léegi lan nga am bon advice nga am pour wax bon advice nga am pour jox ñi nga xam ne ñooy sécurité personnel yi wala ñi nga xam ne ñoo amee border yi lan nga am pour wax. tra ñu dimbalante ñu téye border bi because what happen is comme like foo xam ne you are a security personnel yaa ngi taxaw ne Mandina ba oh, let's say Banjul terminal xam nga ne foofu noonu police yaa fa ak immigration yi understand doo fa aw fi nga aw mooy yoon bu ndaw boo xam ne mun ngaa jógee Sénégal dugga si Gambia wala mun ngaa jógee Gambia dugga Sénégal loolu doo aw foo xam ne immigration nañ la intercept wala police yi dinañ la intercept wala anti crime dinañ la intercept understand fii dangaa dem si yoon am Gambia Sénégambia la Modou yoo yooni suuf si. waaw porox ndol yi porox ndol yi waaw porox ndol yi. waaw. yooyu la gars yi di duggee di génn waaw nekkut yoon yoo xam ne ñu ngi naan waaw gaa ngay drive gaa yi di dugg si not driving de ñu ngi dugg si yoon yoo xam ne yow xëj na foofu immigration bi nekk fa wala police bi nekk fa understand nga nga ñëw dugg si understand and likewise ñu nii nen ñoo war a jàppalante. you as your eh, the landlord su dee gis nga koo xam ne mu ngi pénétrer noonu mu ñëw xam nga yow yaa war a report kooku ñu quarantine ko seet ndax amul feebar bi dee amul na ko ñu faj ko su dee amul ko mu ñëw ñu toog si jàmm kon soo ko seetaanee te mu ko amee léegi yaa ngi yërëm oo fiil ne ise xam nga néebo oo xam nga dëkkandoor muala ker yep hanga lorle so lu yep niti den de talk si kaw information singa a good citizen should be a police officer every good citizen is a police officer nekul ne so solo uniform police wara immigration yo you are a serviceman every good citizen is a serviceman to the country ñu ni ne ñoo war jàppalante let us not sit on informations loolu rek la de loolu la ñu mën a bu nekk nga koy sa site soo gisee ku pénétrer daw ñëw xam nga informe ñu yóbbu ko korontaay suñ ko tesee xam ne amul mu ñëw mu dëkkaa ñun seef su amee ñu faj ko bu weer ñu dëkka nii rek la moo mën a jeexee bi jërëjëf borom tur bi woon ma ne Ibrahima Bouya thank you very much Mr Bojang comme man Abdoulaye Souare jërëjëf Mr Bojang comme comme ñu ne ko déggandoor comme mister Bodian ni mu ko waxee landlord si tamit dañ war a jël ownership ownership bi mooy wat kuñ gis koo xam ne dem nga puy dem nga Sénégal dem julli bi ñëw nañ try ñu report ko ñu yóbbu ko ñu quarantine ko su tasee su fekkee ne amut ñu ñëpp jaamone ñooy su fekkee ne dafa am ah ñu teg ko benn place nga sowe sa doomi sowe keneen ñi nga xam ne ñoo nekk sa boor ñu sowe comme noonu la ko mista ba ni ko défé noonu ba paré ñuy try ñuy sol suñu maxi di raxas suñ loxo ba paré ñuy try ñuy dimbalé xalé tamit xalé suñu suñ ñew nañ try ñu jox la ñuy raxas sen loxoy always ñuy raxas suñu loxoy lo rek ñu mëna a sawelloo si feebar bii comme niñ leen ko waxé rek Sahel Network TV la bir bañul fi ni ngi wor nag pour jéem a coffee bi nga xamné comme rité wonté bi nga xamné mom la gaay dé wax fini bir Banjul ah wa diga ne yàlla gisaguñ ber riite wonté wa diga ne yàlla waaye nak ma ngay ñaan suma mbokki nongoy ñi nga xamné ño dé def lolu nañ jema stray ñu stop lolu nono because loi bi lu wax mooy ne tenakkuloog na ñëpp duga seen kër na ñëpp dugga seen kër yi jaamane ñooy because suñ la waré téye nga wara fay 5000 dollars dafa bari té ñun ñëpp xamné fu nekkal ni mo démé so ñu ngi leena ñaan rek suma mbokki nongoy suma mbokk yuut si maa ngi leen ñaan booy si nañ toog suñ kër yi pare suñ toogee si vuu yi tamit nañ try ñuy sol suñ face max yi ñuy ñuy raxas suñ loxo yi always ba pare ñuy def social distance loolu rek ñu mën a right now nag comme niñ leen ko waxee rek seen leen seen yi si on facebook bi ñu ngi ni lasuwa still now ya ñu ngi sahel tv la online si youtube channel bi foofu rek ngeen ko mën a amee ñu ñaan tamit ngeen seen seen comment on Facebook naka ngeen gis moom la ñoo def mi soif still now boori Krabbe la si boori police post foofu noonu lañ nekkee nat ñu ngi woor si nat puy dem boori McDonald boori police line Stanley Street puy seet area boobu noonu foofu naka lam fa dee demee waaw still now mu ngi la suwaaf gis ngeen ko muy Crab Island police post bi foofu lañ nekka ni area boobu noonu lañ nekkee nii waaw still now nag comme ni ngeen ko waxee rek ñu leen a ñaan ngeen seen seen comments on Facebook foofu noonu dinañu dimbale trop waaw still now nag ñu ngi nii biir Banjul di wër pour jéem a seet things naka lam fa taajo mooy things mooy lan kofiw bi waaw kii mooy seex jaw moom mu ngi moom suma waay la neenam na dafa mel ni gars yi dañ ko dawloo jaw moo nekk ni Cheikh nakam nat maa ngi baax booy booy max bi nat booy max bang doon yundoo léegi nii te naka gisee cofiw bi naka nga gisee cofiw bi cofiw bi hmm. dafa mel ni da nga laaxu woon nii de man la wol ni sa suma biir kër laa dugoon nii sax yee gaa ngi pétrole nag ba wol léegi Banjul tapuloo fii ne selaw ñu ne selaw fu mu nekk doo gis kenn yee ya. bilaayi affaire yi kañ moom dëgga dëgga nit yaa ngi ko respecté xaw ma nag ba pare coy tamit dëgga dëgga ñu ngee def seen liggéey because of booba léegi fii la gaay taxaw xam nga fii nii nag léegi nag mooy problème bi waa Banjul yi léegi foon la gaay def affaire yi foon dañoo taxaw seen bunti kër di gàppa gaay gaay ñëw su ko defee ñu la ñaari ñuy daw because of maa joge perseverance uh, perseverance legui ni ñew ñëw gis nit ñi ba boori si juma be fini King fat ba boori jëm senegal fini nii xoolal Thomas Street nit ñi mom fon lañ ko def na police ñew ñëw di rité wante legui man lool la gis. waaw legui c na lu right la. ah loolu de foog na ne things ci warut a right because of affaire yaa ngi serious affaire yi mi ngi over serious la la waxal ni febar bi ye fu mu nekk dafa over serious. even though soo demee lopitaan sax da xam ne things yi mi ngi serious waaye tamit am na lu ñu naxari si lopitaan bi understand nga fu mu nekk ab docteur yi seen boppa wala nurses yi dañ war a xam ne patients yi ñoo daw gaay because of tey gis naa loo xam ne si lopitaan bi am na si docteurs yoo xam ne wala nurses yoo xam ne dañ dee daw nit ñi xam nga dañ dee daw patients yi te loolu waru xam nga ñun lopitaan bi fii nii lañ yaakaar soo bàyyi xel tri quarter lopitaan si yëpp nekkuñ di doo gis ken da nga febar ñëw ñu ne la nga toog ba docteur ñëw xam nga lolu tamit dafa over métti so situation yoy nonu tamit ah nguur gi war nañu sé jappalé touti ñu sét nak ala ñoo jéema xam nga sété lolu nonu tamit. jërëjëf si sé légui légui gis nañ né ya nga wax leen lu important moy lan boy ñi ngi irrité wonté choy di kuy melni kuy jël fulo am tammi ogo sa pakin ak yoy nonu yow understand na lolu lu ray la sé lan nga am ah. lan nga am puy wax si nga xamné boy yi nga xamné ñoy def lolu ak. suñu mbokki ndongo yi non man kañ booy lu ma amoon pour wax lañ because of su wéy tey si mbeera bi yaa ngi gis gars yi te dañ ne fu mu nekk laisser social distance booy yi nekkuñ di def loolu moom because of su ñëwee dañoo gàddatu géeda ñu xaar gars ñëw coy yi nii su gars yi seen nii léegi-léegi dañoo taxaw fii nii suñ gisee moto def nii rek daani xëy ñoom la de su ko defee dañoo bugg a def affaire yi foon xam nga te lii nii fu mu nekk dafa serious lii dafa serious because of doo dee gaaw a xam ku ko am ak ku ko amul so loolu tamit war nañ see bàyyi xel waaye lii du mbiri pakin ay nekka fii di ñaan fuloo di riitee wante non non non yaa ngi tama suma koñ fu nekka fii moom mooy loolu moom ñëpp dugga nañ fu nekka ba suba de incha mm. waaw waaye dëgga dëgga area bi nag moom ñu ngi over living waaye nag booy yi moom am na si ñoo xam ne nag ci côté bi boor yi li ni li maa ngi mun a gis gaañ ñu ngi koo def foon xam nga te loolu moom warul digga digga jërëjëf Cheikh yaa man te yéen a def nag liggéey bu rafet sahil you know ñun lii lañ bëgg su ko defee Gambien si yëpp xam ne xoolal yee kofi wu bii nii mi ngi dox right now si digga bi te ñu ngi ko over respect tamit soo damaa ñaan nit ñi tamit ten o'clock nañ di dugga seen kër yi toog seen kër yi dina seen reer yi in time understand nga su ko defee affaire yi mun a génn si dëkk bi yal nañu yàlla saafaral feebar bi yàlla musal ñu daaxal ñu ko mu génn a Gambia because of ñun dañ daw booy understand nga so social distance foog ñu respect ko ba pare gadarin si nañ ko bàyyi nañ bàyyi pati yi si pet yi DJ nañ bàyyi ay seen media yu ñu nekka nii tamit di rekoodal booy yi ñu naan ay dañoo génnee woy fu mu nekka xam nga loolu yëpp nañ ko stobangum ñu bàyyi journaliste yi ñuy def seen liggéey si town bi def ko nit ñi tamit toog seen kër yi di teel a ñibbi on time teel a dina reer time waaye suñ ne ten o'clock tëgg na ñëpp di eh, eh, nekk si eh, bitig bi naan ñu ngi xëccoo waa jaamali kii naan jaamali xam nga nañ ko di def in time su ko defee affaire yi mu nat xam nga rek mooy loolu noonu yal na ko yàlla génnee daal si Gambia bi ak si wool bi yëpp yàlla saafaral ñu ko mais ñu jaamo ñi nga xam ne ñu ñoo si jot a gaañu yal na lañ yàlla yërëm xaree lañ aajana ñu feebar yal na lañ yàlla may tane te génnee ko si dëkk ko nag fu xaj xam jërëjëf Cheikh comme ni ko Cheikh waxee nii boy yena ko dega nen ah, try ñi nen sol suñ face maxi sa ñu toge ci vous yi tamit nen social distance su jere sa fuy ñu na ataya na ku nekk isi sa kaas ñu soti la ataya nga jere so please ñu ngi leen a ñaan nañ sol suñ maxi di sol so you understand so ba pare tamit ñu house party yi ñoo def ñu ngi ñaan ngir house party nañ ko bàyyi ak pool party yi ñoo def si biir dëkk bi feebar bi is real covid 19 is real so ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla house party yi nañ ko stop pool party yi nañ ko stop feebar bi lu am la lan moo ñu mun a sooyeloo si feebar bi mooy lan comme ni ko gars yi ni ko borom xam-xam di tërale mooy ne nañ sol suñ face mask di raxas suñ loxo après ñuy bàyyi public gathering si après ñuy def social distance loolu rek a ñu mën a sowee loo comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi leen a ñaan ngeen seen seen comment si si Facebook bi mooy fan Sahel Network TV si YouTube channel bi foofu ngeen mën a amee li nga xam ne mooy daw biir Banjul fii nii muy curfew bi tey nag dañ génn di ñëw pour cek nga xam ne mooy curfew bi nga xam ne moom la ñoo def biir Banjul so comme ni ma ne ñu ngi leen a ñaan ñu rules yi nga xam ne moom la loi bi tëral ñu def ko jaama ne ñooy ñun ñëpp ñu nekk si jaama toppal leen ñu rek fii nii si Sahel Network TV ñu ngi leen a ñaare ngeen seen seen comments yi on si Facebook bi. ñu ngi lasuwaaf still now ñu ngi dem puy woos puy dem boori Spalding foofu noonu foofu lañ nekk nii boori Spalding lañoo dem ñu still now ñu ngi lasuwaaf lasuwaaf lañ nekk xam naa dinañ koof dem boori Spalding dem boori McDonald Fijaral yooyu noonu ak boori police line because dégg nañ ne police yi ak booy yi dañ dee riite wante so ñu ngi ñaan rek suma mbokki ndongo ñu stop loolu noonu because police yi ñu ngi def seen liggéey because neexut kenn ñu téye la sa waajur di sona di jaabante dem fay benn five thousand dollars yi wax dëgg neex yàlla loolu neexut kenn so may ñaan rek waajur yi papa yeeg yaay yi sisters yi brothers yi ñu ngi a ñaan rek ngeen advice seen doom yi wala ngeen advice seen raka yi su ten tegee na ñëpp dugg seen kër yi na ñëpp seen kër yi because loolu la luwaa bi santaane ne ten ñoo gis kenn kuñ si téye di nga fay five thousand dollars si loolu mooy charge si so kenn kenn ñaanut yàlla kuy fay five thousand dollars si so ñu ngi leen a ñaan rek ngir yàlla ak yonente bi ñu def loolu noonu ñu ngi nii nag Spalding foofu noonu lañ nekka Spalding moom dafa empty moom dafa empty foofu lañ nekka nii Spalding gisuñ kenn lu dul moto ak muus jaabante si tali bi yooyu rek lañ si gis Spalding mom dafa empty wax dëgg yàlla Spalding dafa empty ñu leen a jaajëfal rek gis nañ seen comments yi si Facebook bi waaw seen leen seen comments yi am solo lol, lol, lol, lol. lool am solo lol. yes maa ngi maa ngi nuyu waale tamit suma sista muy Mariama Soare di ko wisaale happy belated birthday and then suma benn brother gis naa comments am muy kan sang sang seka borom nuyu na la comme nuñu len koy ko rek still now follow len Sahel Network TV télé bi nga xamné mo moo nekk biir Banjul mo len mëna a li nga xamné mbolem ko xamné nama nga biir Banjul rek tunal ci Sahel Network TV on ci YouTube channel bi di nga mëna xam lepp lu xew biir Banjul fini nii lepp lu xew biir Banjul rek fan nga ko mën a muy Sahel Network TV ci YouTube channel bi comme ni ñu leen ko waxee rek still now ñu ngi def suñ wu bi gaa ngi si curfew bi still now gisuñ gisuñ gisuñ benn rite wante still now ñu ngi spalding ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi spalding Alimatou ñu ngi laa jaajëfal rek gis nañ sax comment si thank you very much Alimatou comment moom rafet na trop and then bakar yoo tamit gis nañ comment si trop wax dëgg neexala kontaan nañ si comment si bu baax a baax a baax still now ñu ngi leen a ñaan rek seen leen comment bu baax a baax comment si nañu mën a dimbale trop comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi nii boori Pin Street Pin Street lañ nekka nii Pin Street ak Liwalin gisaguñ doon rité wante bi nga xam ne moom la like comme police yi ñu ngi rité wante ak booy yi ah, wax dëgg nii la gisagul kenn mbéeda yi moom biir Banjul moom mu nga set wej wej wej wej wej wej wej wej comme ni ko gars set wej la def gisaguñ benn rité wante nee na jaajëfal rek seen comments leen di leen wax jërë ngeen jëf seen comments rek seen leen comments si Facebook sama gis-gisal gisu président bi hmm. waaw Amadou